jaar place am jëmbat fu laak fayda place ba ñoom Ama Baldé Boy Niang nekk ndeysaan foofooy place waaye arbitre baa ngi wax ak ñoom arbitre baa ngi wax ak ñaari mbër yi la lamb bëgg ak la bañ diggante ko même si booy Lansar lay waree. ndeysaan Père Maxime Margane indi ko. ndeysaan arbitre bi soufflé na. nee naa ku sa yaay di jàmm maa doo daw xare. la ilaha illallah xale waaye ragal du jam guy ndeysaan. waaw waaw waaye Lac Rose. ak xam moo di Quench Boy. ak Quench Boy. arbitre bi soufflé na. tey mu leer. wure wa dem na kër waxe mag dem na nañ taali. tey mu neex. lépp mu leer. ndax dañuy xeex. xas-xasoo nañ. wala dañuy bëre. nañ yónni yàgg léegi mu leer. léegi mu leer ndeysaan. ñu bëgg waa zone de captage yëpp ñuy bëgg ji baax Quench cokaas na. Lac Rose sekkatal na ko. Quench moo leen woon ginnaaw. waaye lutte motivation la. ak OSTV. OSTV ndeysaan. Quench Lac doorante nañ. ndeysaan. Lac Rose Quench doorante nañ. laa ilaaha illallaah ñoo ngay korante ndeysaan. laa ilaaha illallaah. Quench Lac Rose. jàppante nañ. ñooy ci côté saako ya. lan moo nar Quench am na ngemb waaye Lac Rose tamit jàpp na ca loxo droite ba lan moo nar a xew combat bu nar a gaaw Quench dóor na Ubercule ndeysaan Quench Lac ndaysaan doo ngay bëree xale ñaar xale joxante ñamante nañ rëj rëje nañ ndaysaan korante door waaye yow door jàppante waaye di nuyu diaspora bi waaw waaw di bëgg ñëpp di leen kontaane bu baax a baax ñoom ñi nga xamante ñoo ñu bàyyi xel waaye maa nuyu sama xarit ndaysaan ben jawra kuwelt kuwelt la la nar kuwelt jàpp na la rose xale yaa ngay yëngal xale yaa ngay yëngal ndeysaan Quench Lac Rose Quench a ngay roxas ci suuf ndeysaan waaye Lac Rose jël na boppam teg ko ci ndeysaan laa ilaaha illallaah ñoo ngay bëre ndeysaan le 30 avril ndeysaan Quench Lac Rose Quench moo koy roxos xale yaa ngay bëre ndeysaan stade baa ngay yëngu ndeysaan ba tey dara xewagul mbokk yi ndeysaan waa Fass toogatuñu ndeysaan waa Tëngéej toogatuñu ndax sa ñaari doom ay bëre ndeysaan waaye lutte motivation la seen bi nga xamante ni bu leeree rek ñoom la ndeysaan ñoom ñoo koy joxe xol yi di féex demal TikTok nga abonné Instagram nga abonné ndeysaan YouTube nga abonné Lutte Motivation Quench Boy ñoo ngi ci côté saaku yi ku si nekk nga sa benn loxo ndeysaan ku si nekk jàpp nga waaye benn loxo nga jàppee Quenche Quenche Lac Rose ndeysaan lan moo nar a xew ndeysaan Quenche Lac Rose ba tey dara xewagul yi lamba a ngi noonu bëre mu ne Quenche

jàppante nañ ci kaw dara xewagul Quench Lac Rose maa du ñu niil man ko maa du ñu niil combat bi yàgg na ndeysaan arbitre bi atte na ñamante ne ñoom ñaari mbëri Wow, wow. Desan. man soxna jaara rek lah itu pun Desan. moo ma bëgg ma bëgg ko di ma ci doroo di masa safoo Desan, moom soxna jaara bu so waaye kuwent ak log rose jàppante nañ ñoo ngi ci digg géew bi ndeysaan Lac Rose siggi na Quench moo ngay forcé dafa mel moom soxna jaara Quench bëre la bëgg Quench bëre la bëgg waaye Lac Rose mayu ko fu mu jàppee Lac xeex bi mooy avantage moo tax moom tamit Quench Lac Rose moo ngay bëreloo ilaha illallah eh Kouel sa waay ak Lac Rose ñoom moo ngay fixé ki nga xamante ni mooy Kouel tourne la ilaha Lac Rose daw na song Lac Rose daw na song ndeysaan Kouel si jàpp na ca ngemb la Kouel si jàpp na ca ngemb la lii la bëggoon si jàpp na eh, lu ñoom mi-temps wala ñaari mbëri ñamante nañ ku si nekk xam nga sa morom lu sam ñoo ngay damante baaraam coin sa la close kore sa gauche kore sa droite doo ngi dóorante coin la close coin la close coin la close coin eh eh la ilaha illallah wow neex saf sap Quench lan la nar Quench maa fi nga dugal sa loxo ba baax na laa ilaaha illallaah moo ngi koy fàqat Quench Lac Rose laa ilaaha illallaah Quench daan na Lac Rose laa ilaaha illallaah Muhammad rasulullah jël bu rëy xalil may lu ma Quench laa ilaaha illallaah Quench bi Quench waay Quench am na ndam